sëñ bi da nga def. maa yaa ngi jàkkaarloo ak euh, waa Sene News ñu ñëw di la jël da nga doon waxtaan léegi waxtaan bi nga doon wax léegi lan la ñu bëggoon xam. man Issam Gor Fall laa tudd talibé seen maam Gor Fall man waxtaan bi laa wax ni man nee naa ku góomul Seera Fall ku ko bañ comme sax du julit du murit sax. Seera Fall moo yoon wi. Seera moo yoon wi. Euh, Bamba Serigne Bamba ab dëkk la amul yoon Bamba amul yoon Seex Rafal moo yoon wi ku bëgg a àgg ci ku tedd ki dafa war a jaar ci yoon wi yoon wi Seex Rafal la Seex Rafal day tarbiyu noo def ko doon Baay dama euh, jaroon ci yoonu suuf amoon na am amoon na fii ci France benn jamono dama dajoon ak benn tubaab may na ma euh, natalu Serigne Fallou natalu juróom ñaar Serigne Fallou jamono booba dama xamuloon kan woon tubaab boobu wax na ma Antonin le le man mu wax ma dencal ko bu baax ci sa poche bi da la fa indi xewal man yaakaaroon dama Euh, bëgg euh, ut euh, dëgg dëgg. dëgg bi man dëgg bi nekkul fi ci dëkk seen Bamba da koy fekk. dëgg bi Touba Mbacké rek. foofu teranga am na xam-xamu am na sax tamit yar ak teggin am na. looloo tax euh, photo boobu moo tax nga découvrir euh, yoonu Baye Fall. yoroon naa photo bi juróom-ñaari at bala ma njëkk jaar ci yoonu suuf ndax àgg ndar ma bi man njëkk ñëwee Sénégal jëluma avion de. yoonu suuf si la la jaar. bi ma àggee ci ndar la àggee dama toog ci ak nekku benn xarit ku tudd Pape Samba Gueye. bi ma togoon ci nekkam gis na benn nataal bu mag ak juróom-ñaar seen fallu ci suma poche am na amoon na juróom-ñaar seen fallu dama xamuloon kan bi ma gisee nataal bu mag bi ci mur bi dama la kooku kan la man am na nataal bi ci suma poche depuis sept ans ya la ko yor man xawma kan la seen fallu la mu wax ma seen fallu doomu seen bamba la nee na seen bamba moom dégg naa ko bu yàgg 1996 ab am na ay étudiants euh, sénégalais ku may wax am na ku julli ci kaw géej ay euh, kon euh, dama doon dégg loolu bu yàgg nee na ah Bamba kon foofu laa bëgg a fay na yëkkati na sept soixante dix mille francs fay naa sept places sama xarit yi yëpp nu ne nanu nekkoon Ndar ci Diamaguène dugg nanu ci sept place bi ba ak Touba bi ma àggee Touba dem na Mbacké Bawol ut ab sëriñ dama daje ak benn mbokk talibé ku tudd Dar ki moom waa Ndar la moom dama waxtaan ak moom mu jooy ba yëkkat ci waxtaanu maam Serap Fall na man sëriñ laa ut dama bëgg jébulu mu wax ma si sigil nun dem dama laa yóbbu ci ab sëriñ bi ma jàkkaarloo ak sëriñ maam Gor Fall dama ram ni ram jébulu jox na la suma bopp àdduna ak araxira lu ma ndigal ma def lu ma tere ma ba ñaati yoon dem na gàmmu ginnaaw gàmmu bi dem na ci daraja mu nekkoon ci yoonu Mboro ci Taïba Ndiaye ci boor mu Taïba Mbaye xam nga. Mm-hmm. waaw foofu am na dara Serigne Cheikh Ndigal Fall ak Serigne Cheikh Abdourahim fal ak Serigne Cheikh euh, euh, Serigne Cheikh Fall mooy taw suma Serigne ki moom léegi mooy kal euh, kilifa ci sunu njaboot. seen Cheikh Fall mooy taw seen maam Góor Fall. Mhm. nag bi ma nekkoon ci àll dama tarbiyu. donc laxasaay nga ma dama doon takk ndigal yi. Mhm. dem ci. Euh, tool euh, ci tool yi. Mhm. tamit di majal. ak ngise bi. ndugub ceeb gerte euh, weccet.